lu ñuy def lan la ah booy booy nga xam ne booy tànn sa président tànnoo ko parce que dañ daa neexal wala dañ daa forcé dama ko tànn parce que voilà programme am neex na ma surtout yéex ah loolu yëpp ñàkk gi ni mel ñii yëpp ñàkk moo ñu ko indil te peut-être ñoom ci seen bopp bëgg nañ sax ñu mel noonu ñu ñàkkee noonu ndax toujours ñu mën a egg suñ kaw di ñu àtte di ñu moom yooyu yëpp mën na see nekk mun na am seen i la ñu ngi ñaan fi nekk nii euh, euh, Sénégal compliqué tey fan yi lool waaye ñu ngi ñaan Macky ñu ngi ñaan Sonko yërëm leen population yi yërëm leen population yi yërëm leen jeunesse bu ndaw bi yërëm leen seen avenir réew xelaat leen bu baax ne dajale xale yi ci mbedd mi di leen manifesteloo di leen xeexloo du mooy defar seen avenir seen avenir mooy nangeen leen dimbale gis naa benn opposant Nigéria opposant la contre gouvernement bi waaye yàlla may na ko alal mais bon demee nous muy campagne pour moom alal le mu génne di tabaxal population bi ay ay ay ay ay école école ay d'ara al ak te chrétien la ay al Quran d'ara école école France école anglais yep mon ngi leen koy tabaxal ba pare di leen defaral ay forage ci seen tool yi lu nekk mu ngi koy defal population bi xam le dëgg la gis seen njëriñ population bi xooloo intellectuel ba intellectuel intellectuel intellectuel seen bopp yi dafa lëndëm ah intellectuel mooy koo xam ne waxtu wu nekk boppam baa ngi métti intellectuel mooy koo xam ne waxtu wu nekk noppam yaa ngi intellectuel mooy ko xam ne du nelaw intellectuel moo xam ne toujours mi ngi am mi ngi seere dafay seere ndax toogaay bu yàgg bi ak liir mi daf ko ah man xam naa leen mooy intellectuel vraiment xam naa ko ce ce ce n'est pas ah du du du hmm? du du du du du du jafe noonu donc bon de mi ngi ñaan Macky yi ngi ñaan Sonko nañ xalaatee beneen xalaat pour seen réew bu gën xalaat bi toog naa ak représentant Nations Unies ci Soudan ma ne ko dañ lay ñaan yow yaa fi représenté Nations Unies xam naa yaa ngi liggéey ci benn boîte boo xam ne tëral nañ seeni loi ne nii la loi yooyu mënoo ko génn parce que da fay liggéey waaye dama lay fàttali ay yëf dama lay fàttali ne sénégalais nga te teranga ji xew Soudan Sénégal la ko yàlla commencé donc bobu loolu Sénégal commencé bu mu yàqoo ci sa ba julit nga say mbok julit ngay jëflanteen lolou itam bu ko fàtte ñetteel ba embargo yi ngeen di def ne da ngeen di yer population yi da ngeen leen di lor parce que embargo yi du ñoom chef yi ñoo ciy loru population bi moo ciy loru population bi bu ci loroo loro loru loru bu yàggee dina yëngatu dina manifester dina mer parce que lii te yéen seen embargo yooyu moo ko def bon nag embargo bii ngeen di jël da ngeen ko yaree nit ñi da ngeen di indi yàq bu ngeen demee na ngeen ko seetaat ndax embargo bi mën na indi solution wala mënu ko indi bu ngeen demee seetaat den loolu alors ñu waxtaan mu ne ma sëriñ bi comprendre naa la sëriñ bi comprendre naa la bi comprendre la jot naa ay nouvelle bu yàggut nee na ba mu demee vraiment pour dëgëral jàmm yooyu Sénégal yóbbu Soudan liggéey na pour dëgëral ko Euh, taxaw na ci taxawaay boo xam ne waa Soudan yi am nañ satisfaction ci taxawaayam loolu la nit dafay dégg nit dafay fi lii laa doon ci sama maam nii la sama maam yi daan defaree mais jamono daf lay romb passé la dootoo xamante looy def te dootoo demati fenn te loolu moo dal Sénégal moo dal Sénégal Sénégal am nañ gis-gis ci politique am nañ gis-gis ci religion gis-gis yoo xam ne vraiment jamono bi moo ko passé jamono bi bëggatu ko beneen jamono la bëgg nit bu bees la bëgg jeune bu bees la bëgg jeune bu xam mëna a ak jamonoom jeune bobu la ñuy ci suñu religion yi mom la ñuy cherché ci suñu politique yi mais du rek ñëw fixé ci benn nit rek né nit bi la ce n'est pas vrai loolu du defar loolu du defar avenir du défar peuple du taxawal état ni ngi koy gënté ak ni ngi koy bëggé donc bon ñu ngi ñaan bu baax a baax génération bu ndaw bi xam leen seen bopp bu baax ak ut ut nekk njëriñ pour seen peuple yi bu leen ut di seen peuple di defal ba pare ngeen di ko yàq di ko lakk ci mbedd mi baaxul monsieur le président de la république yaay responsable bu mag ci Sénégal yow la ni ñëpp di déglu ñu ngi lay ñaan nga bàyyiwaat sa xel ci sa peuple nga bàyyiwaat sa xel ci nouvelle génération bi di màgg si ñu ngi lay bàyyi ñu ngi lay ñaan nga am euh, ne yëngal boo xam ne dafay lor population bi loolu taxut ñu teg la ci président de la république dañ la caa teg pour nga aar Sénégal ci jàmm Sonko santuñ la pour nga parce que rek am naa xorom ci xale yi lu ma leen sant ñu def ko vraiment nga di ko exploiter exploitation boo xam ne loru moo ci ko loolu itam bàyyi ci sa xel parce que dafa yàq du defar ñu ngi ñu ngi leen di ñaan yéen ñaar parce que fi nekk yéen a nekk Sénégal di waxuwaay pouvoir ak opposition yëpp ñoo yem ci peuple bi parce que ñoom ñëpp la peuple bi di déglu donc man gannaaw peuple baa leen di déglu na ngeen fexe ànd ak peuple bi foo xam ne bu fa àggee dana fa gis njëriñam dinañ may wax ne ñu ne ma walla léegi dañoo bëgg nga wax ci diggante Sénégal nangam ak nangam ma ne Sénégal bëgguñ ñu Sénégal ñun bëgguñu ñu nanguwuñ ñu ah waaye nag ñeneen ñi nga xam ne nangul nañu bëgg nañu ñu buñ demee dinañ wax ak ñoom mais Sénégal ñoom ah, ah, ah, bëgguñ ña seen yi bëgguñ ña seen yi complètement nañ ñu tëj nañu ci benn côté bloqué nañ ñu ah buñ sañoon dañuy génn Sénégal maa ngi fàttaliku al euh, Cheikh Hadi allah yarhamu mu toog Abdou Diouf mu ne ko Abdou Diouf man dama am benn ñaan bu ma lay ñaan mu ne ko waxal mu ne ko dama bëgg nga may ñu nationalité Sénégal mu ne ko ah mu ne ko nationalité la bëgg nga may ñu mu ko yéen ay sénégalais ngeen mun ne ñee yéen defu leen ñu ay sénégalais lu ngeen di wax sénégalais boole leen ci lu ngeen def sénégal boole lu yàgg la colonisateur yi moo ko fii ñoo ko fi indi ñoo ko fi indi waaye ñu ngi fàttaliku ñu ngi fàttaliku Sénégal yëpp Sénégalu démb Sénégalu tey nouvelle génération bi ne ñun ak yéen ay sénégalais lañ li Sénégal bëgg loolu lañ bëgg li Sénégal bëgg àgg pour nekk nitu teraanga nekk nit bu kawe loolu lañ bëgg li bëgg pour mbaax loolu lañ bëgg te ci loolu la ñuy xeex guddi ak bëccëg bu ñu Sénégal nangulee ñu defal leen ko ko buñ ko bu ñu nanguwul faale wuñ leen ñu defal ko ñi nga xam ne faale nañu bëgg nañu ñu ngi ñuy déglu. te duñ jeex ci àddina bi fees dell àddina bi ñëpp ak ñuy déglu ñëpp di ñu xaar Sénégal bu ñuy dégluwul nag moom euh, oh, voilà mais li ñuy def ci mbedd mi baaxul li ñuy def ci mbedd mi baaxul dama taseeg euh, euh, président bu Soudan bi mu di ma waxtaana la mu ne ma dama lay ñaan parce que ñi ngay dem nii taxuleen a am taxuleen a ñor bu baax ñëwuñ te lay xew yépp opposition bi nekk fii moo koy def mooy dem influencer leen wax leen gouvernement bi ba ñoom tamit ñuy nar dal suñ kaw fekk euh, du ñoom mais opposition bi la donc woon opposition bu bu ñor dafay rey peuple am opposition bu ñor dafay dimbalanteeg pouvoir am ñu def loo xam ne intérêt peuple bi la te du tere ku droit ci bu élection ñu bu la un na nga abal ma un ba yoon un déloger siècle civilisation que yal nañu yàlla may ñu comprendre Sonko ak Macky ñooy teg yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal Sénégal gi nga xam ne dëgg-dëgg kenn xamut lu muy liggéey bu ngeen seetloo am na atu lëmm passé bu ngeen di jàng journaux yeeg intellectuels yeeg journalistes yëpp aju saar Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko atu lëmm mel ni loolu rek moo am Sénégal ah fekk te loolu amul sax li am Sénégal mooy un jeune bo jeunesse boo xam ne fu mu jëm loolu moo am Sénégal Euh, Sénégal fu lu mu lu mu am mooy peuple boo xam ne bu ñàkk la naka lañ koy teggee Sénégal lu fa am peuple boo xam ne dañoo wax ne jàng nañ intellectuel lañ te jànguñ duñ ay intellectuel loo fa am loolu yëpp naka lañuy fexee ba dund ko dundin boo xam ne dinañu teggil coono yi nga xam ne dafay am te mi ngi amee rek jógee ci politiciens yi politiciens yi ci ñoom la bàyyeekoo opposition bi ci la bàyyeekoo pouvoir bi ci la bàyyeekoo ñun ñooy nekk ay victimes ba nag ñun ñoo war a taxaw taxawaay boo xam ne taxawaayu dëgg la taxawaay bu ñor la taxawaayu jeune jeunesse bu bëgg dara la du jeunesse boo xam ne pare naa pour dee pour diw dee pour diw pour lan yàlla santu la loolu booy dee pour diw deewal pour yonent yonent sax ya nanguwul nga dee pour yonent booy dee deewal ngir yàlla wala zina jaahadu fii na la nahdiyannahum subulana loolu la yàlla wax ngi kontaan ci suñu séjour yi ñu am ci Gambie